tëggal junjung te tëggal ko ni marxabal te ci diggu xol te dalal ko diggu xol te dalal ko te way ko hëddiya laab ko te tagal ko i marabal te dalal ko diggu xol te dalal ko te yu ñu taaral bara wurus ko wayam na yu ñu taaral bara wurus te tëral ko nde mooyoo ñu nasal ko ca xub jamaata kalaat ko dëgg ñum te tagal ko poroxaan te lalal ko yi di ko xol te dalal ko waral ki nga baaxoo di way ngir ñu dolaat ko te soxna jaara sa soppee di sa xarit de jalaat ko de junjum te tagal ko di mara amal talalal ko di diggu xol te dalal ko Omar wayal ki nga di way ni rëñ ñu kalaat ko te soxna jaara sa soppe di sa xarit de jalaat ko te junjum te ko te marabal talalal ko te way ko di yàlla ci nga baaxoo di way ngir ñu kalaat ko te soxna jaara sa soppe di sa xarit ja jalaat ko sëriñ moor xam sa diine yàlla ko yàlla fay أنت يا من دعاني لمدعياك ويك لسانها لكمن ما لون عندك كعبة أنت يا من دعاني لمدعياك ويك لكمن ما لون عندك من أنت يا من دعاني لمدعياك ويك لسانها لكمن ماله نان غتكاتكو أنت يا مكاني لمن هي أتويكو لكمن ماله نان غتكاتكو أنت يا مداني لمدي أتويكو لسانها لكمن ماله نان غتكاتكو نعمتك ويكون إذا نهادك من mel ni nga mel tey bëxin bëxin fesalaat ko yaa ñoo jëp li nga may woo ni mel ci man ma misaal ko ci ay seel tami misaal ëpp naa ko lam naa ci géej jug cofeelam ba far gëlëm ci melal ko anka way ko sama mel ni ku mandi ci sàngara si bëgg lënt ni sama mel ni ku àndaatul ak sa gom di janaar ko waaw saama mel ni ku ànda tu lekk sa goom di janeer ko ni saama mel ni ku faro dof wallaayi man bëgg naa ko ànda ñu lekk sa goom di janeer ko yi saama mel nit ku far dof wallaay man bëgg naa ko akaway ko feese ci xol bi du yàgg man ba ma miis ko li may defal ba ma aatal ko jël dundam nafaraat ko aka yaa mataani li ma aka way ko soxna jaare ku rëy ndam ta ndam layil mu yoyoo ko ngir jëfam dafa tuutul te nag lu waay jënd moom ko anta yaa mataani li man yaa ataway ko waaw soxna jaara ku am jom xolam ba sell ñu fóot maam soxna jaara selloon rafet jikoom dëkku loor ko aka yaa ma taali li mariya aka way ko kaman maayoo maandu doy la wet way kabam ga xamoon ko lu bëgg bari kersa taxoon ba ñépp ya doon ko anta yaa mataani li mariya aka way ko maandu doy lu la wedd way tabam ga ñépp xamoon ko mu ngeen jubay bari kersa taxoon ba ñépp ya doon ko anta yaa mataani way ko sanu alika man maaloo nan nga tagaat ko ragal bindoon ka wa fesal ko xam-xamam bari lool talum jëfi xame woon ko barkel sa ragal borom ba ko bindoon ta jaamu yin wa fesal ko te xam-xamam bari woon lool te lum jamit jafe woon ko ragal borom ba ko bindoon tajaamu yin wa fésal ba xam-xamam bari woon lool talum xamit it gis ko. Ah, waaw day jox déedéet sax kii kay xanaa kay wax ji rek. waaw waaw waaw wax ak ñoom dem leen a soññi sant leen. sant gi moom fo fo fo mu waree foo leen koy tàmbalee. waaw yéen yéen nga dégg bu baax waaye nag sant yàlla bu baax. amiin amiin sant yàlla bu baax. amiin yàlla boole ci liggéey maam Jaara bi. amiin nga xam ne moom moom mooy mooy mooy selliti liggéey suñu tool. jërëjëf sant yàlla bu baax a baax a baax. sant yàlla bu baax te fas seen lépp nag. amiin fas seen lépp. seen seen seen